cent pour cent euh, naturel sans conservateur son colorant mën ngeen ci am parfum yu leen neex euh, muy orange di mangue di ananas di li nga xam te moom mooy cocktail ak euh, pêche képp ku ci bëgg rek da ngay dem ci boutique bu la gën a jege daal di wut li nga xam te moom mooy jus bu neex bi lii di original wala bokk bu dee da ngeen ci bëgg lu bëree bëree bëri mën ngeen woo waa Ndukumaan groupe au 77 644 15 67 bu ko defee ñu daal leen jox xéwal yu neex yooyu la di jus original donc li ñu fi dese nag kon na seen rubrique bi lay di écho euh, du ak ki nga xamante ne moom mooy kàngam alors kàngam comme ni ñu ko waxee woon sànq ñu fa yéene rek waxtaanee arnaque yi nga xamante ni saa su ne ñu ngi koy nemmeeku ci euh, réseau sociaux yi alors sans plus tarder rek euh, kàngam ma bàyyi la rek nga wax ñu yan mooy jafe-jafe yi ci faral di nemmeeku lan mooy avantage yi ak inconvénient wala bokk naka lañ war a def moytu arnaque yi nga xamante ni jamono ji bëri na lool. voilà euh, Condé ñu démarré ci tactique boo xam ne de Dippery tactique de Dippery mu nekk loo xamante ne tey stratégie de message yoo xam ne mu ngi sonal nit ñi comme tey jii nii euh, buñ la ko envoyé euh, comme si que da ngay gagné ay émo connexion wala xam nga utiliser benn célébrité turu célébrité wala utiliser benn. Euh, benn entreprise bu siiw. Mhm. mu nekk mu nekk stratégie boo xamante ne tey jii nii sonal na nit ñi ci message yi te doo ko mës a def nag ba gis ci sa bopp. tu vois dalay wax euh, des fois nga partagé vingt fois pour nga am vingt émo yi wala cinq cent émo yi wala nga partagé vingt fois pour juste nga gagné benn cadeau benn benn téléphone portable. wala des fois ñu ne la ah, gañe nga lii benn benn oto wala genre mu nekk message yoo xamante ne sonal na nit ñi trop trop trop mu nekk euh, loo xamante ne day wàññi sécurité bi aussi pourtant amoon na jamono yoo xamante ne ba nii nii sax am na da gis benn euh, si Facebook en général lay am wala messenger ñu envoyé le message nee la man ci réewu tel laa ñëw sama jabar dafa gaañu sama kii dafa gaañ léegi xaalis bi mu am dama la ko bëgg envoye est-ce que doo ma jox sa compte bancaire loolu loolu laa fi am loolu bëri na lool fan loolu la ñuy wax impact de la sécurité surtout côté boobu noonu boo xoolee yu bëri appel yu bëri mais en général boo xoolee appel bi da gis numéro yi dey différent ak euh, yeneen numéro yoo xamante ne moom la ñuy déggante ak genre yooyu noonu moo tax nit da war a bàyyi xelam à chaque fois euh, nit ki bu la wooyee laaj ko euh, pourquoi d'abord lu tax dina la wax te eppi am na loo xamante ne euh, yéenewul maanaa xel mënu ko jël donc tout toutefois nga am appel yoo xamante ne balaa ngaa confirmer moom dara il faut nga laaj koo xam ne expert la ci wala xam na ci dara wala nga laaj ku nekk sa sa wet boo xoolee aussi côté partage yi message yi envers WhatsApp ñu bëri application lañ koy àndal maa ngi ko doon wax euh, la fois passée ci rubrique intique maanaam dina doon loo xamante ni da ngay yombal nit ki euh, des faiseurs de malin ñu dugg ci sa système wala piraté la xam nga euh, c'est pas c'est pas c'est du tout yoo xamante ne da nga ciy gagné dara wala mu nekk benn photo bu la envoyé boo xamante ne boo cliqué ci photo bi nan la yóbbu ci benn bërëb boo xamante ne juste pour benn stratégie aussi de marketing pour nga mm. wan leen seen produit genre yooyu mais li ci gën a daal nit ñi mooy partage boo xamante ne bon ku ñu ne da ngay gagné un million exemple boo defee vingt partage wala cinquante partage muy fàttali ne ñeneen ñi nag xam nga ma koy partager kii di la ko partager nga message bi sone xam nga di la déranger en même temps li gars yi di wax. Euh, yàq sa temps ba pare doo ci am dara surtout loolu loolu la ci gars yi métit lu bu baax a baax donc ñuy wax ne pour nga moytandiku loolu tout le temps boo gisee message yi moom xamal ne munoo partager ba gis sa bopp wala boo ko def ba gis si boppam aussi euh, day nekk fànna boo xamante ne liñ bind ci message bi wuti na ak message yu baax yi euh, en général dañuy utiliser comme turu célébrité yi wala turu utiliser benn benn nom entreprise boo xamante ne maanaam ràññee nañ ko ci wàllu def offre yu mel noonu mais boo xoolee offre bi aussi nga jël sa temps liir da xam ne lii méngawut ak bi ma doon gis. Mhm. donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax doon na loo xamante ne daal lëmbe na ci réseaux sociaux yi voilà ci côté WhatsApp te te te aussi côté sécurité ma ma profité waxaale. ci mise à jour ci whatsapp bi comme mu nekk loo xamante ni aussi dina amal nit ñi njëriñ bu baax a baax euh, ñu bëri dañoo deñ dañuy jël téléphone jàmbur di partager ay genre yooyu noonu mm. juste pour gagner quelque chose donc man tey mun naa jël sama téléphone euh, man ak euh, monsieur Sow tey suñu conversation ma codé ko léegi ci mise à jour whatsapp bu bees bi conversation sa nit ak nit wala kenn ak kenn wala yow koo xamante ne bëggoo même sa doom bu amee accès ci ci téléphone téléphone bi du am mot de passe bi donc benn conversation ci biir whatsapp bi mun nga ko codé ba kenn du ci am accès mu nekk yoo xamante ne aussi dina wàññi genre message yi nii kilifa du nekk ci ci ci benn concentration wala ci benn liggéey mu tëb gis message te am na ñoo xam ne meluñ nii ni man maanaam man bu ma gisee message rek xam nga mun naa ko bàyyi ci biir ba pare li may def mais am na ñoo xam ne dañoo dénk tu vois dañoo yàkkamti voilà ñuy liggéey wala ñu concentré wu ba nga envoyé leen message boo xamante ne xam nga hmm. dañuy xool bu ñu xoolee gaspillé nga seen temps te épp puis xam nga Euh, c'est pas du tout respectueux donc mm. euh, am na am na mise à jour WhatsApp boo xamante ne maanaam di nga mun a codé kilifa yi nekk sa sa sa sa conversation yëpp nga mun a am benn mot de passe boo utiliser même nit bu amee accès sa téléphone aussi dina wàññi lu mel noonu ñu mm. bàyyi ci xel bu baax a baax rek message yi ñuy gisee wala appel yoo xamante ne tey moom damay surtout ci message yi message yooyu noonu c'est c'est des messages yoo xamante ne sonal na nit ñi te amul benn njëriñ amul kenn ku ciy def Euh, ba gis ci sa sa sa bopp. man li ma jaaxal leen di arrivé yéen ñëpp. li ma jaaxal euh, moom mooy lan moo tax léegi arnaque yi bëri te li ma ci gën a métti mooy sa numéro téléphone ku nekk mën na koo am léegi. te joxoo ko ko fan la mm. nit ñi di amee numéro téléphone nit ñi ba ku nekk sañ laa woo di la tegal yoo xam te koo xam tam daf lay woo naan la sama papa laa bëggoon woo dama juum mm-hmm. euh, kii ma crédit boo paree mu lay woowaat di la sonal woowal sama papa Serigne daal maanaam façon chantage boo xalaat léegi nit ñi am nañ jotu di ko def boo demee ba xam ne kii arnaqueur la moom mooy retourner euh, contre yow di la wax wax wax yoo xamante ni doo sax comprendre fii nag lu lu légal dafa bëri ci dëkk bi maanaam lu lu lu lu yoon tere nit di ko def bëri na fi trop parce que tey jii man j'ai eu la chance que nekkoon naa Maroc euh, def naa aussi tuuti ci centre d'appel yi léegi boo xoolee numéro étranger yi ñu doon woo kan moo ñu doon jox numéro liste yooyu noonu est-ce que légal na si ñoom légalut fii wala genre te tu vois des fois aussi am na ñoo xamante ne ñoo ngi liggéey ci bërëb yoo xamante ne ay opérateur lañ xam nga euh, mun naa ñëw ne monsieur Sow je te vends des centaines de numéro yoo xam ne gox bii la tu vois tu fais ça léegi kii mhm. am benn plan d'action boo xamante ne lan la ciy def maanaam ñiy jaay ci wàllu wàllu takkaayu jigéen ak genre yooyu la ciy def léegi man man maay woon ni ñooñu di leen sonal am naa sama stratégie marketing aussi tu vois et puis di di déranger nit ñi te aw ma ndogal jël seeni numéro ak hmm. genre yooyu mais ñeneen ñi aussi dañuy tâtonner tu vois des fois da ngay def sa benn liste numéro temps temps temps temps xam nga euh, da ngay xam ne yii nii tey damay damay tenter sama liste bu nekkee loolu kese laa def comme sama business quoi xam nga euh, nit ki moom booy def lu bon yenn saa da ngay am jotam. Mhm. tu vois am ay cumuler ay numéro yu bëri. di mhm. woote di déranger nit ñi di envoyer ay messages dina am ñoo xam ne dañoo nooy bopp. Mhm. moom moo tax tout le temps j'invite les gens buñ nooy bopp du loo dégg rek gëm ko. tu vois ñu dal ko en fait. di waaw di tikkoo tak 1 million 2 million 4 4 luy loolu gañ nga 1 million rek. voilà jox ma sa numéro compte. voilà ñu jël li nekkoon sa compte yi. et surtout li nga wax aussi nañ bàyyi numéro jàmbur yu ñuy joxe loolu du respect numéro c'est personnel aussi Sénégal nag loolu dem nañ ba xoo foyee ko maanaam joxe numéro diw ak diw non ça se fait franchement. humainement maanaam nit ki waroo jox numéro nit ki sans pour autant ndigal wéyee si loolu moom bàkkaar sax war na da ciy jógee te et puis mm. maana te te loi war na cee wax. Mm. ni ñuy sonalee nit ñi quoi waaw surtout ay daan yu métti nga xam te ne jamono ji ñoo nekk di wéyal li nga xam te mooy wàllum arnaque arnaqueur yi alors Théo est-ce que loolu mos na laa dal. waaw loolu da gis kenn nit la lay woo dama gént xawma lan <laughs> damaa lii wax la ko. bon doo ne fu ma jëlee sa numéro parce que. wala wala naan waxal alhamdulilah rabbil alamin. waaw <laughs> léeg-léeg <laughs> ni jëlee da nga gis ay nit tamit yoo xam ne lu ñuy def leen mooy ñëw nii comme nii nga dugg si kiiwu orange monnaie wala euh, yooyu ngay def retrait wala ngay def dépôt waa ji seen sa numéro fekk xamoo ne benn escroc mu ngi toog di di jël seen numéro en même temps pour après kii la beneen affaire mën ngaa toog fi ngay liggéey kenn woote parce que ñëppay woo woote mun na woo sa benn collègue ne ko waa dama soxla woon numéro diw mhm. mu woo mu jël woo kooku yaakaar cadre professionnel fekk am na intention malsaine. bien sûr loolu yëpp dafa dafa dafa am. pourtant même ñoom tamit daf la ñu dal lu. ba nekk ci agent de. Mhm. di di di di def ci wàllum euh, transfert d'argent ñoom tamit daf la ñu dal lu bëree bëri. côté boobu surtout loolu loolu nag day day day métti quoi moom moo tax may insister ci prévention bi rek ak euh, ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel gis nga te ñoom boo xoolee comme genre fi ñuy retirer xaalis ñoom dañ lay woone wala ñu jox la benn message wala benn spot boo xamante ne ah ñiy woote ci suñu numéro nii ak nii loolu du bu baax bi bii mooy numéro bu baax bi exemple boo buggee jot agence bii de transfert bii da ngay def numéro bii mais nit ñi ñoo dëgër bopp wala boog mu nekk loo xamante ne dañoo sonn sonn boo xamante ne tey boo waxee 1 million dañuy tiit wala 100 millions parce que aussi nañ bàyyi xel ne réew mi dañoo ñàkk quoi mhm. xaw a ñàkk euh, waaw buñ gisee benn 100000 francs xam nga ci benn message ni mhm. des fois ça y messages yoo xamante ne nit ñee koy bind am benn nuñ koy envoyé ba nga da ngay teg ne wéew la wala genre tu vois mhm, donc euh, nañ bàyyi xel parce que opérateur yu mag yi tout le temps day am message boo xam ne dañ ciy insister ci seen client ne lii kat moom mooy pour ñu jot ñu nii ngay def pour jot ñu nii ngay def xam nga pour moytandiku lee ah à part numéro ñu jox leen bu leen ci woo naan la si suñu tur nii demewul nii. Hmm. donc aussi kon il faut ñuy respecter consignes yooyu di ci di ci ànd ak dégloo. Hmm. pour mun a moytandiku genre genre problème yi aussi quoi. Aliou Sow est-ce que mos nañ la arnaquer si yu mel nii en euh, ligne. si man dañ may woo ci kii ci euh, euh, nu mu tudd. Euh, ci sama téléphone mais am na benn numéro boo xam ne man xaw ma lan la 72 la. 72. voilà surtout ça monsieur Sow gis nga numéro. boo demee ba numéro bi. Mhm. nekkul ay euh, comme comme numéro yi légal fii quoi. 75 77 76 78. tu vois toi même euh, tu devais avoir des doutes. yow indicatif Sénégal la xanaa loolu Sénégal. Euh, non jii man. mun naa yore comme 77 naa mais la commencé. waaw loolu laa lay wax ni maanaam boo ko gisee. nga war na xa war nga sa xel lan lay njëkk def day ñaaw ci dara. tu vois mhm. en général man mun naa am numéro France di ko utiliser fii nice wala ñee am numéro Sénégal di ko utiliser fii léegi dafa am loo xamante ni dafa gën a. tout est logique lépp mun na nekk. Mhm. boo bàyyee xel loolu rek léegi nag xam nga ci la ngay tënku. Mhm. Mhm. ah numéro bi de lii tàmm ma koo gis saa yu amee différence rek pose toi la question ko lu waral lii. léegi en général nag bu amee lu ko waral rek maanaam même boo ko xamul jegeel ku xam. wala hmm. nga renseigné am na genre ñoo xamante ne sama genre yi man su ma gisee numéro bu ma xamut am na fu ma koy dugal pour ma xam kan la ak genre nan la ak genre tu vois voilà am na ñeneen aussi ñu koy def hmm. tu vois donc donc boo xàmmeewul numéro bi daal vaut mieux que nga def ndànk du ma ne nag amul parce que comme ni may waxee ci dans la nouvelle technologie bul bul bul bul bul bul ne dara amul tey man sama numéro sax mun naa ko def loo xamante ne day personnel wala genre technologie dafa toll foo xam ne kenn du mu dara voilà ku ne nag xamoo ban intention la jël pour def loolu noonu quoi mhm. donc il faut juste mais mais vraiment dafa numéro boobu la wax. Ah, non du du ma jël du ma jëlati quoi. une fois du wax du wax voilà. mais après jël jëlatuma ko. doo sax xam ban dem naa vérifier ko nag. waaw voilà mais genre numéro spéciaux yooyu la. Mhm. waaw mais xaw ma lu tax mu mu insiste te day insister 5 heures du matin sax da woo. 5 ah, nga yow suba teel gis ko des fois nga nga mu guddi mu woo la des mu fajar mu woo la des fois ci journée bi mu woo la donc je sais pas pourquoi il fait ça mais bon il faut que gars def numéro boo xamul man numéro en général bu ma xamul du ma ko jël. déjà wax téléphone dafa dafa dafa dafa yàgg on a vraiment du travail on a autre chose à jël téléphone ni ku woote nga décroché déjà nit boo ko wooyee sax benn yoon te sa Euh, euh, enregistré wuloo ko xamul ni yow am nga numéro man pour man du ma insister dama lay yónnee message soo paree nga rappelé soo ma rappelé wul soo ma rappelé man garaawul sa mm. mais au moins man xam naa ni mm-hmm. yow sa numéro musuma enregistré sa numéro mm-hmm. euh, yow sama numéro enregistré woo ko mm-hmm. nekkul ci sa ci sa ci parce que man xamuma la x moo tax ma lay woo et en général c'est une bonne raison léegi bu fekkee ni jëluloo dama lay yónnee message après yow yaay xool ndax da nga may rappelé wul déet soo ma rappelé wul c'est mais man nit boo ma wooyee jëluma mais envoie ma un message su ma la su ma la su ma la jëlul surtout bu fekkee ne numéro bi enregistré moo Uh-huh. mais vraiment jarul jarul ngay insister mais dañuy gis ñoo xam ne xamul sax xamewu la. li ñuy liggéey ni mën na nekk benn fan mais quand même woote à 5 heures du matin loolu. mais je te boo xam ne mais monsieur Sow li mu wax dëgg nii li gën a yomb ci ci moytandiku loolu mooy message numéro boo xamut. mais oui bàyyi ko ah, message nga ne ko rappelé man la diw. te et puis ñun dañ ko sàgganee. fii nga jàng na tu vois. oui non mun nga message message bi daw. après soo ma rappelé wul tam bien avant que ngay woo xam ne yow la waaw voilà. Euh, surtout loolu am na solo trop ñuy ñuy wëyal message yi message yi moom doon na loo xamante ne tey du sonal nit xam nga te et puis seerul. mooy tax nga mën a identifié wu sax boo woowee nit ki jotoo nga mën a jox sa identité man la diw lii ak lii ak lii. moom su boobaa dina la mën a rappelé mu xam ne xëy na lii am na solo. Mhm. alors Dieng yow tamit est ce que na laa dal. bon man de xam naa lu may faral di daal peut être moom dina si am solution dañ lay envoyé benn message soit ne na da ngaa gagné wala nangam léegi ñu bari nag dañuy wax ne genre espion genre espionnage la quoi mën nga ko ubbi ñoom ñu am accès si say si say si say voilà man nag peut-être yow bu la envoyé message boobu comment pour mu bañ a ñëw si sa kii wala am na yeneen technologie yoo xamante ne du du yooyu message yooyu am si kii quoi parce que en la envoyé message avant ngay am réflexe ne ay dañ la bëgg espionné yoon mën nga ko ubbi alors que boo ubbee rek ñoom am war am nañ droit am nañ accès si sa si say données waaw ah. loolu noonu boo xoolee tey jii nii il faut ñu am sa contact mhm. en général bu nekkee mhm. WhatsApp pour ñu envoyer la ko des mhm. fois euh, mooy yi ngay wax nii day ànd ak image bu ndaw wala vidéo te mën nga régler sa WhatsApp de telle sorte ko même image même man su ma la yónnee image wala vidéo du chargé wu sans pour nga xool ko mais li nga gis annonce écrite bu ndaw bu mu àndal ci suuf léegi saa yoo amee doute bu ko chargé te saa yoo amee doute bu ko laal donc premier. da ngay effacer rek automatiquement. voilà da nga effacer automatiquement quoi. day effacer wu automatiquement quoi. Mm-hmm. donc loolu yow nga effacer ko sa bopp. voilà te te te boobu xam nga mun naa wàcc sama téléphone ba ma gis ko. Mm-hmm. mais du du du du lire quoi en fait. parce que dama réglé sama WhatsApp de telle sorte que man image yi du du wàcc sama sama sama galerie. ok voilà mun nga def loolu voilà léegi nag boo gisee message de doute bi nii tu peux supprimer directement. mi ngi noonu am na solo. voilà oh c'est intéressant li nga non c'est super intéressant. ñu bàyyi ci xel du lien bu nekk la ñu war a tijji du téléphone bu nekk la ñu war a Euh, woote wala boog message bi ne lañ wax euh, envoyé du appel bu nekk tamit lañ war a lool ah, loolu tamit il faut ñu hmm. bàyyi ko xel bu baax a baax remercier la yëf yi amatina solo on se donne rendez-vous prochaine fois